kontaan naa I'm good. I'm bii nii like match préparation bu métti la woon que victoire bi dañ ko soxla woon pour mën a dem Rwanda am three défaites ak ñaari victoire So paree ñu gagné match bii nii xam nga que amoon na ay tension yu métti coach bi xam nga match bii match stress la so we did it Alhamdulillah, and then yeah qualifié na. alors tey ban appréciation nga am ci comportement boobu. a baax ba ma toogee woon si baa bi sedd naa ba ba ma jugee dégg gars yi yóoxu xam nga loolu daf ma yeewaat sama yaram tàng xam naa li ma nekk xale ñoom ñoo tax naa di ñëw di ma support affaire yooyu noonu kontaan naa si bu baax a baax a baax a baax